te loolu souvent day favoriser le partie au pouvoir xam nga lu tax jëlal l'exemple de de la coalition Macky Sall bi mu jiite muy takku lan takku wàllu Sénégal wax nga ban Sénégal lay wàllu parce que en 2024 moo nañu mars moo nañu doyal naa sëkk tey mu ñëw ne dañuy wàllu léegi mhm. euh, boo jëlee takk wàllu seen électorat fan la jël fan la jóge APR PDS. PDS. bu fekkoon ne APR ak PDS dañu nekk force ya ñu nekkoon en son temps mm-hmm. man jàpp naa ne mën nañu représenter un réel danger mais APR PDS nekkatuñ ko lu tax am na ñu bari ñoo xam ne ils sont déçus parce que Macky Sall a fait au Sénégal durant les dernières années de son règne électorat boobu ñàkk na leen. Mm-hmm. am na électorat boo xam ne Amadou Ba jël na leen parce que loo ci bënti dégg saf yotu mu neex Macky Sall mu naqari ko su Amadou Ba taxawee ne damay créer sama list mhm. amul fu muy jëlee électorat. Mhm. fu dul benn. d'accord Ba amul électorat opposition benn bu muy jël. Mhm. d'ailleurs ñan ñooy alliéem waa bennoo kese. waa AFP waa PS et cetera ñi bokkoon bennoo. bu amee ku ci dollee ko mooy Mamadou Ibra Kane. d'accord kese donc électorat wu Amadou Ba. ci Macky Sall la koy jële ci li ci parti côté ci kaw Macky Sall la koy jëlee. soo jëlee liste bu mel ne ñoom Tafsir Coy. Mhm. mooy liste bi ñu tuddee ànd soppi Sénégal ou quelque chose comme coalition soppi Sénégal. Mhm. Tafsir Coy fu mu bokk fu mu bokkoon. fu mu bokkoon PDS. PDS mhm. Doudou fu mu bokkoon. PDS. Euh, Awa Abdoul Ba fu mu bokkoon. PDS Ndiaga fu mu bokkoon. PDS ñooñu fu ñuy jëlee seen électorat. PDS PDS. ce qui veut dire quoi. que ni tey électorat bi nga xam ne moom la Macky Sall waroon a yaakaar. dans une zone par exemple disons. si seen coalition boobu y' a certainement Woré Sarr. Woré Sarr bien eh, Woré Sarr merci Safiatou. Mhm. électorat fu muy jógee ci PDS. Mhm. boole ceeb dès que ñu génne seen liste yi nga dégg contestation yi. Mhm. ce que li ma bëgg a foofu mooy tey boo jëlee département bu mel ne Dakar. le PASTEF bu réussir une chose. mooy te loolu defe naa ne ñi ngi nekk di ko réussir ñoom waa PASTEF. parce que depuis que seen liste yi génn gisuma ci des contestations majeures. gisuma ci des contestations majeures am na ku ma ci woo tey ne ma waaw ñun d'accord uñ ci li siiñ génnee suñu département parce que suñu commune nangam ak nangam mais ñun mënuñu ko wax ci kaw ma ne ko léegi yow bu ko mënoo ko wax ci kaw man maa la koy waxal ci kaw man <laughs> bokk cette partie ma leen koy waxal ci kaw nañ ko dem wax Ousmane Sonko il est là il il les radios et les mhm. pour faire quelle localité pour faire plus sérieux euh, non bëgguma tooñ d'accord euh, c'est dans le département de Mbacké d'accord pour faire plus sérieux mhm. léegi soo jëlee disons un département comme Mbacké mm-hmm. puisque fa lañ nekk mm-hmm. su su si le Pastef réussit et loolu ils l'ont réussi mm-hmm. parce que en dehors des contestations de waa GPS bu Mbacké quelques personnes gisuma fa contestation bu majeure parce que celui qui fait l'unanimité là-bas c'est Cheikh Thioro Mbacké léegi Cheikh moom ce qui est sûr mooy l'électorat de Pastef et de ses alliés moom il est assuré de l'avoir il est assuré de l'avoir parce que gisuma lu koy dindi léegi mu des parti yi nga xam ne ñoo war a xëccoog moom pour raw ko pour jëlee les du département de benn de Mbacké mm-hmm. parti yooyu seen électorat bi ñu bokk nga xam ne bu ñu ko boole woon xëccoo bu mën a sérieux mm-hmm. mais dañ koy séddoo mm-hmm. amatu Ba day jël Tafsir Thioye day jël Macky Sall day jël Euh, sàmm sa kàddu day jël léegi ñoom ñëpp ñu jëlee li la dal yow ak baron ci man moo leen dal cest à que bu ngeen boolee am quatre raw ma mais comme booloowu leen ku nekk deux lay am man mi am trois raw leen jël élection moo tax ma ne la ça favorise le parti au pouvoir te loolu moo nar a rey les coalitions de l'opposition ñu ñëw nag euh, def benn comparaison tuuti même uh-huh. si comparaison n'est pas ñu xool euh, wax ji métti na tey massa xam naa ne soj <laughs> bi xam nga chose dina ji suñu sponsor euh, dellu si waat waaye nag euh, ah. comme il en est ñu des rek si lépp euh, waxtaan ñëw xool def benn comparaison ci diggante Amadou Ba ak coalition sàmm sa kàddu waaw man dama dama toog ma ne mhm. Amadou Ba mhm. mooy tëdd de liste coalition jàmm ak njëriñ mhm. <laughs> dama yàlla baal sama benn grand mu ne ma moom li mu daan dégg mooy jeeg jàmm ak njëriñ mm-hmm. ama jigéen ñi bu ñu leen lan leen di taggee jeeg jàmm ak njëriñ xam nga loolu noo koy tuddee sa coalition rek mais bon kaasi laa na ceen c'est non eh, eh, waaw jàmm ak njëriñ non jàmm jàmm lu baax la njëriñ lu baax la waaw mm-hmm. ah, mais du tee nag ñu waaw ñu fàttali ne voilà mais mais euh, boo jëlee Amadou Ba mm-hmm. man dama jàpp ne dafa am lu mu wane dans sa coalition xaw ma bëgg-bëggam la xaw ma contingent xaw ma contexte moo ko obligé. Mhm. mais en tout cas man dama jàppale dafa cohérent ci li muy def. Mhm. lu tax amadu Ba moo doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar à l' élection présidentielle de. 2024 2024. Amadou Ba moomu. Mhm. waa PDS. dem ànd ak Macky Sall. ak ñoom Abdou Mbow mi ma dina wàjji wooyu Abdou mu ndaw ñoo ñooñu ñoo ànd dem ne conseil constitutionnel dañ leen doon ger ba pare accuser ci amadu Ba seen candidat ci boppam ñu accuser ne moom moo doon jéem a ger waa conseil constitutionnel mhm. benn ñoom ci seen bopp ñoo dem assemblée nationale dem ne dañuy créer une commission d'enquête parlementaire pour leeral waxu ger googu ñu doon wax ca conseil mhm. wax ne seen candidat boobu di amadu Ba day ñëw ñu déglu ko mhm. Amadou Ba jàpp ne bu ñàkkee élection yi Macky Sall ak ñi mu àndal ci lañ bokk. Mhm. ba tax sax Macky Sall keroog bi mu woowee du mbaw téléphone muy weddi naan li mu war a def yëpp def na ko pour Amadou Ba gagné mais voilà. Mhm. mais en tout cas ñoom loolu lañ jàpp Safiatou mhm. est-ce que yaakaar nga ne logique waxuma logique politique mais logique gu xel. war na nangu yow nga ne amatu balaa laa tudd. damay diriger sama liste pour nekk candidat mais ñi ma doon accuser ne damay corrupteur laa ñi ma doon accuser ne dañuy teg commission xool ba man maa doon guerre. député yi. Mhm. ah safurla juge yi waaw les juges constitutionnels. Mhm. léegi man ñooñu dinaa ànd ak ñoo ci benn coalition wala ci intercoalition. Mhm. déedéet. logique wul. moo tax ma ne la Amadou Ba li mu nekk nii pour man lu logique la. et jàpp naa ne su fekkee de njariñ war naa am. ci diggante mu ànd ak Macky Sall ak waa PDS ak mu bañ a ànd ak Macky Sall ak waa PDS mu bañ a ànd moo ko yëppal njariñ bu bañ a ànd ak ñoom. moo koy ëppal njëriñ bu fekkee njëriñ dina ci am. mais la seule chose wala boog bémol bi ma gis ci liste amadu Ba mooy dama yaakaaroon ne Amadou Ba Safiatou. bu dee jël quand même ak force bi ñu ko doon prêter et nekkoon candidat wu Benno nekkoon premier ministre ak fi mu jaar yëpp. dama yaakaaroon ne tey doon na jël ay ténor yu mag. ci APR. ñu si mel ni. mais ñu ci APR bari nay ténor. yu mag yoo xam ne tey bu leen jëloon comme la Macky Sall waxoon ba mu jëlee Moussa Sy ca parcelle. Mhm. mu ne jën wu mag la jàpp. Mhm. mais Amadou Ba ñi mu jàpp malheureusement du jën yu mag. Mhm. ay Cheikh Oumar Anne nga fay gis ay extra ay voilà mais tey man dama doon yaakaar ne su Amadou Ba tegee listam dañ naan i diw kii ni mu li mu tekk ci affaire yëpp dem na fekki Amadou Ba. mais malheureusement loolu problème la pour moom. que ni euh, ñi nga xam ne ñoo am électorat à la paire. ñi ëpp bokk ils sont restés am na sax Thiès. kuñ fa ñoo Amadou Ba naroon investir mu ne moom du jàkkaarloog Macky Sall xaw ma nan Dieye. waaye mhm. jiite woon Abdoulaye Dieye. waaw am na audit bu ñu ko defal foofu na xaw ma yëg na ko mu déet. Mhm. mais mu ne moom mënul. Mhm. jàkkaarloog Macky Sall. mais qu'à ça ne tienne Safiatou il faut reconnaître à Amadou Ba au moins une chose. que ni li mu def nii lu logique la. li logique mooy gis nga politique. parfois il faut savoir être courageux. et se dire moom Amadou Ba que même bu dee perte du am benn député wala bu dee am ñaar wala ñett moo ko gënal. dem ànd ak ak waa PDS ak waa APR. bu Macky Sall quitte avec sa conscience. quitte avec ta conscience parce que mënuma la mënuma accuser de corrupteur pendant des mois. ma xëy suba ñëw ànd ak ñoom loolu problème boobu laa am man pour comprendre waa sàmm sa kàddu. Mhm. sàmm sa kàddu mooy ñoom xalifa Sall no problème boobu laa am pour comprendre lan moo tax. Mhm. sàmm sa kàddu bii euh, euh, ñoom xalifa Sall teg. gis naa maa Malick Gakou bind ko ci benn communiqué te jàpp naa ne il a parfaitement raison. qu'est-ce qu'il a mais sa gëtu mënoo comprendre Khalifa Sall. Mhm. bokk na ci ñi nga xam ne daanaka ñoo njëkk a opposé wu ak Macky Sall. Mhm. vers 2014 je crois ay mars 2014. Mm -hmm. quand quand il a nekk benn euh, kii boo xam ne APR da koy xëccaale. Mhm. ñu laaj pour demal seen yoon ñoom waa PS. xaw ma yan élection lañ juboon ñoom amit ñoom Ousmane Tanor Dieng lànk ne du fi amee. ñoom Bamba Fall fippu Barthélémy Dias fippu ñu dem fii ci maison du parti Colobane mhm. xëppante suuf mhm. xëppante suuf ñu jiñ leen fa ne dañ doon bëgg rey ay responsable PS ba si Ousmane Tanor Dieng ko tëjee woon si jàpp ñoom mhm. Bamba Fall ñëpp tëj te lan moo ko defoon ku dul Macky Sall ak régime am ca jël Khalifa Sall def ci kaso bi xalifa Sall génn opposé wu frontalement ak Macky Sall ne fu mu tardé fu Sénégal tardé régime ak ñi mu àndal ñoo ko def dem assemblée euh, def seen liste mu tudd Yewwi Askan Wi ñu dem assemblée nationale di xeex contre le régime de Macky léegi Macky Sall daanu six mois après nga ñëw bokk ak ñoom benn intercoalition. Mhm. ça fait où est la logique dans tout ça. Mhm. lan moo cohérent ci loolu. Mhm. nga jël exemple ñoom Pape Djibril euh, nu ñu koy waxee sax euh, na bokkum Anta Babacar pour pour ñoo xam ne c'est des jeune pour qui j'ai bokku de respect. ndax gëm naa ne Sénégal dafa ñu mel ni dañu baax ci politique bi. muy Pape Djibril Thierno Bocoum Anta Babacar et tout mais ñii. tous les combats qu'ils ont menés contre le régime de Macky Sall est-ce que mën nañu ñëw tey expliquer Sénégalais yi que ne ñun kat nous sommes en intercoalition ak Macky Sall. d'accord ça pose problème. c'est valable pour Déthié Fall. Déthié Fall. mais on l'entend plus d'ailleurs. Déthié Fall bokkoon na. Mhm. ci ñi ci ñi ci ñi gën a ci le combat contre Macky Sall ci ñi gën a dans le compagnonnage avec euh, Pastef bu Ousmane Sonko. mooy le plan Déthié Fall. d'ailleurs exactement d'ailleurs d'ailleurs on dit que ni euh, intercoalition bi dañ ko doon tuddee PDF le plan Déthié Fall. Mhm. intercoalition parce que dañ ne moo ko fi génne. Mhm. mais malgré tout ce qu'il a fait moom Déthié Fall. est-ce nga comprendre son parti nekk tey en intercoalition ak le PDS. Macky Sall. man de ça me pose problème. sincèrement ça me pose problème mais y' a plus intéressant jëlal Bougane Gueye Dany. mais Bougane en deux mille vingt quatre man maa ko jël fii ci penco. mu ne moom rupture lay woote. et que si Ousmane Sonko n'est pas candidat et que le Pastef am candidat bu bokk Pastef nga xam ne kooku day incarner la rupture. da ngay soutenir sans condition il a dit fii ci penco. Quelques mois après, non seulement il ne l'a pas fait, mais quelques mois après, le même Bougane, il revient, il est dans une intercoalition ak euh, kii nu mu tudd comment il s'appelle intercoalition ak euh, Macky Sall ak PDS. Mhm. mais mais ana logique ana cohérence mhm. politique man j'ai dit ici si suñu live yi jàll. Mhm. que ni politique dañuy wax très souvent que ni. euh, les alliés les plus sûrs en politique sont souvent de potentiels ennemis je suis d'accord mm -hmm. mais il a un minimum de logique il a un minimum de cohérence mm -hmm. quelque chose que je n'ai pas compris également et loolu man xawma Bougane comment il a fait pour tomber dans ça Safietou man bi ma gisee listu sàmm sa kàddu. ma gis Bougane onzième position je crois que onzième la ci liste bi su ma juumul c'est à vérifier Baron si tu as la sàmm sa kàddu mais être parité bi nga xamante ne moom la ñuy moom moo ko yóbbu ba onzième. mais Safiatou parité ou pas. Mhm. ban critère moo war a permettre Thierno Bocoum jiite Ousmane. Asafula jiitu Bougane ci liste. Mhm. ban critère moo war a permettre euh, Pape Pape Djibril Fall jiitu Bougane ci liste. Mhm. le mouvement gëm sa bop la tu penses pas que ni pesé na pesé wu fi lu lu lu lu Pape Djibril Pape Djibril pesé na fi lu mu fi pesé wul. Bougane Gueye onzième sur la liste nga xam ne tey je suis désolé mais il la peu de chance d'être élu hein. bien sûr parce que s'il y a euh, et là le parti au pouvoir am na rôle bu mag bu mu ciy joué. s'il y a vote massif. cest dire que si les Sénégalais votent aux législatives. comme ni ñu ko defee à la présidentielle mooy ñëpp teel yow dem voter yi. taux de participation bi élevé. boo xam lan lay impliqué sa fiat mm-hmm. mooy le coefficient pour avoir un député. mën na mat ay soixante mille voix. pour avoir un député. Mm-hmm. ce qui va dire ce qui veut ce qui voudra dire quoi que ni pour avoir dix députés di nga obligé am ay. Mm-hmm. six cent mille voix. coalition opposition bi yu fi nar a mhm. boo nee benn doone ñaar. d' accord sànq Moustapha yaa ngi koy wax. muy uh-huh. euh, si coalition yi euh, ñuy fàttali ne reddition des comptes bi nga xamante ne Macky Sall bi muy ñëw euh, def na ko doore ko si Karim Meïssa Wade ba si Khalifa Babacar Sall je crois que ñaar ñooñu la fa la lañ si